السلام عليكم بوكي سنغال مالي نوي ديجا جار دوخ نيسا واتش واي مالا اسما كانجي كوردناتور ريجونال جامرا بو جوربل مالي لين دي جوخ نيسا واتش واي ما بوغ واخ سي كوت ال 3 بي رك اك بريمو فوتان يي واخ سما خلات دا تول بارنا جاب ني دا فا ام لو خامني سيتوان يي بي لا وار موي ووت كي جودي ووت كات دانتي دا استر ليسانس كي بابا جي جودوم مو وار ديكلار دوم كو دو فوتو ايتا فوتو بابا جي

di ko xañ citoyen bi ndax jàpp naa ne ki war a wut dafa war dem set de quartier mu jox ko domicile bu joxe domicile war na kii fii dëkk ndax boo demee ci article quarante bi dafa moom dafa la ko mën nga indi sa maanaam boo dëkkee si koñ bi nga indi sa facture courant wala téléphonique wala loo xam ne yow yaa ngi fay lénko mu war ne identifié la fi loolu da loolu da da da koy certificat da lay jox domicile moom certificat domicile da la koy jox nga ñëw fee ñu jox la certificat de résidence nga mën a ñëw bindu te bindu nag ki dëkk juddoo si commune bi ku juddoo si commune bi kooku laaju ko waaye koo xam dafa jugee feneen ñëw feneen ko dafa laaj maam am sa résidence maanaam article bi préparé nako ko euh, euh, téléphonique wala facture courant wala facture ndox wante lima bëgg wax rek moy président Macky Sall lay ñaan mu jëlaat décret ndax 40 40 jours dafa gàtt nda imagine trois président de la république ki am dem police bindu bu ñëwé commission bi tëj

ndax citoyen bi dañoo citoyen dañoo jàpp ni tant que tant que élection jub si rek am carte d'identité te loolu déedéet heure bu la neexee euh, état teg na fi ay ay gendarmerie ay police nga war dem bindu ji bindu ji na wuti carte d'identité loolu citoyen bi la état teg na manam bagage yi waral waral yëpp pour nga am ko wax dañu japp tant que élection am rek mën am carte d'identité te loolu ñu ngi koy euh, déploré te wax di yalla mi parti politique yi société civile ñoo ci war a askan wi na carte d'identité moom heure boko ko bëggee chaque jour boo demee police gendarmerie ñu defal la ko waaw li wax rek moy loolu yàq la nga dem fee bind fa may de un mois nga ñu bind si liste bi carte bi la police joxoon nga génn nga dem si liste électorale bu carte d'identité boobu génnee carte bi la police joxoon boobu baaxatul te loolu yàq la te jàpp naa ne dafa 2004 ñaari commission yëpp nekkandoo boo bindoo si commission bi pour carte d'identité bi dem si commission bi ñu bind la nga dugg si liste électorale yaakaar naa ne le président mën naa jël décret yokk yokk temps bi temps bi dafa gàtt trop 40 jours dafa gàtt dafa gàtt trop kon président ngi lay ñaan di wi dëgg la CEDEAO euh, loi CEDEAO dafa wax ni mu élection bi desee six mois amul droit nga laal nga nga laal code bi wante nag amee na droit laal ko wax dëgg yàlla kon ñu ñaan président nga xam ne moo mën a jël décret ko wax en tant que un Ndiaye Jamra bu Diourbel la amoon nañ ko wax ci population bi wax ci tuuti suñu xalaat xëy na mën naa defar am na kan yoo xam ne buñ paree vidéo bi dañ ko dugal foofu jàpp ni ministre dina jot jàpp ni président de la république dina allah rabi di félicité ñi ci commission yi yëpp nag di ci liggéey jërë ngeen jëf